ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw nekk ci bërëb yarukaay yi ñu ñaanal leen yàlla génne leen fa dara bañ leen faa dugalati waaye saa su ne rek xel sunu dem ci way daw lu ñu leen ñaanal yàlla atte leen ci yërmandeem jégal leen seen i bakkaar kilifa diine fu ci waay mën a nekk ak foo bokk rek ñu ngi lay nuyu la ziar di la ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot gi nga yàgg ñëw ñaanal waaye itam kilifa aada itam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen ñaanal jàmm ñaanal leen gudd fan ñaanal leen itam yàlla sottal projet yi ba lépp loo xamante ni ñu ngi koy mébét ci réew mi rek euh, mu mën a yemb ba suñu yaakaar bañ a tas ci ñoom biir réew mi yëpp nuyu naa leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko itam mbokk yi nga xamante ni taamu nañu génn euh, di leen ñaanal jàmm itam yàlla defal leen xéewal ba ñu dellu siwaat euh, ci fi nga xamante ni mooy seen réew ñu dellu siwaat nag tey ci talaata ji tey fas yéene àndaat rek waxtaan ci li nga xamante ni mooy coow li dox diggante commerçant yi ak Auchan diggante sénégalais yi sax laay wax ndax commerçant yi ay commerçant sénégalais lañu ñun ñi nga xamante ni ñooy consommateurs yi naka noonu waaye nag Auchan doon koo xamante ni ci àll ba la jógee ñëw samp ay banqaasam mu tàmbalee law macha allah ci biir dëkk bi lan moo waral nag coow li ba suñu jën yàlla tey dañ ci àndaat ak keneen koo xamante ni eh, ci commerçant yi la bokk eh, bokk ci waa jàppoo ànd itam ak ki nga xamante ni mooy Adja màgget xam naa moom moo fi teewal consommateurs yi ñu waxtaan ne rek ban jafe-jafe lañ ciy teel ci njënd moom mu nga xamante ni ñu ngi koy jënd ci Auchan ak itam bàyyi gi ñu bàyyi borom marché bi ak borom boutique bi nga xamante ni ay bénéfice dafay delluwaat ci réew mi loolu dinañ ko wax waaye nag dinañ wax itam yenn gàllankoor yi nga xamante ni dafay am ci marché yi ba tax na saa yi ñu tabaxee marché itam désordre am fa ba yooyu yëpp doon loo xamante ni daal eh, nit ñi ñu ngi koy ñaxtu depuis démb ak léegi ko li ñuy def mooy rek dañuy bàyyi suñu yaay Adja Maguette mu nuyoog mbokki téléspectateurs yi laataa ñuy xuus ci wi waa gàncax a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim mm-hmm. laa xawla wala xawata illaa billaahi aliyyil aziim mm-hmm. dugg ak bismillaahi rahmaani rahiim génn ci alhamdulillaahi rabbil aalamiin di la nuyu rek am di nuyu adduna bépp nag di nuyu Sénégal gépp mm-hmm. di nuyu amosis ga ma jógee 456 di leen ziyaar di leen delloo seen wàccuwaay di nuyu sama waa kër di nuyu ñëpp di nuyu àdduna bépp rek mbayang dëgg la ndax àdduna bépp moom boo nuyoo rek jeexal na fi mu ne ñëpp a ñuy déglu mm. seetaan mm. doon wax na yàlla nañ ko teg ci yoon rek ci barke Seydina Allahumma amiin mais gars yi namoon nañ la de ndax mardi da nga leen digoon ñëw dama leen a namoon waaye sama rakk doon ngénte <laughs> ñu toog fa ba xam nga rek ay sept heures du matin ci làng gi dama lay namm su di namm sama gars yi wallaay ndeysaan namm naa leen waxoon naa ko ne ko bokkul ci habitude am muy tardé waxoon naa leen ko keroog tey xëy see fii laa ko fekk macha allah Adja Maguette ñu koy nuyu di ko ziar. waaye sëñ a mi ngi fi góor gi jaw ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ngeen bokk nuyoog bokki téléspectateurs yi wax ñu itam euh, ci fan nga nekk euh, ci réew mi ak ci looy yëngu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. baada auzu billahi min asheytaani rajim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. wa kun muizan lana min charri si hasadin ma charri famin wa charri al ayni yàlla soxna Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax euh, ñun ñu ngi fi teew teewal fi inaako waa jàppoo bokk ci commerçant yi réew mi euh, di xale di yëngu ci njënd ak njaay maa ngi nuyu commerçant yi nekk Sénégal yëpp mhm. te bokk ci inaako waa jàppoo jàppoo di nuyu tamit sama waa dëkk Euh, di tubaakan di nuy Serigne ba Serigne naa ak samay waajur yëpp maa ngi leen di nuyu. Euh, xam naa ba ci kanam incha allah. muy am solo ñaata Unacois waaw benn Unacois moo am. waaw benn Unacois la xam. <coughs> benn Unacois ci la ñu bootu. Mhm. Euh, xëy na nag mbooloo day doxee noo xam ni. Mhm. bu bu fekkente ne lépp ci mbooloo mi dana aw ne. Mhm. keneen jàpp ni li mbooloo mi aw neexuma ma aw ne loolu foo dem am na fa. dëgg la waaw comme parti ni muy demee rek mhm. da ngay gis parti démocrate sénégalais ba yàgg nga gis kee génn fee kee génn fee kee génn fële mhm. waaye ba tey parti bi tey mi ngi fi d'accord waaw inaakuwaa bi tax ñuy wax inaakuwaa te mag ñi sosoon ko commerçant réew mi sosoon ko mhm. Euh, xeexal commerçant yi ba mu agsi fii mm-hmm. mooy INACO jàppoo président Idi Thiam jiite ko ak ñi mu àndal ñëpp d'accord ñun commerçant yëpp ci lañu bootu est-ce que ña est-ce que INACO yu bari yi def ko ay pàcc yu ndaw ndawaan est-ce que indilu leen gàllankoor bi ngeen nekkee tey déedéet déet andi luñ wala yéen ñëpp yéen a bokk xeex bi déedéet déet andi luñ gàllankoor mm-hmm. en tout cas commerçant Sénégal yi waaw commerçant yi waaw INACO booy dégg muy wax tey waxal commerçant waaw commerçant yi lay waxal mais beneen INACO boo fi déggaat boo beneen boo fi déggaat waaw bu dul INACO jàpp jàpp naa ni ñeneen lay waxal waaye du commerçant yi. d'accord parce que ñun commerçant yi moom inaa ko waa jàppoo ci ginnaaw Idi Thiam lañ bootu. te it bu la neexee nga rifee ba xam di gis benn commerçant bu la taxaw ni manqué beneen inaa ko waa bu dul jàppoo. d'accord muy lu am solo inaa ko waa jàppoo ñoom la ñu àndalaat euh, tey jii ci émission bi euh, di waxtaanee rek jafe-jafe yi nga xamante ni ñu koy am. ci biir euh, ci réew mi euh, jëm nag ci Auchan bi nga xamante ni moom lañ tabb lépp nag defe naa ni doon coow loo xamante ni euh, gars yi dugg na seen nopp waaye nag faw ñu ànd ak ñoom ñu gën a leeral loolu moo waral ñu invité leen tey ànd ak ñoom ci émission bi waaye Adja Maguette yow defe naa ni jigéen nga. dëgg la yor sa kër. nekk ci li nga xamante ni mooy wàll mën nañ la tuddee sax ci consommation bi ci nga bokk. Adja Maguette diggante Auchan ak commerçant yi coow li ci am noo noo ko noo ko gisee. man daal Adja Mbaye ak diggante Auchan ak commerçant yi. Mhm. parce que ñun sénégalais lañu. Mhm. marché lañu xam. marché marché. Mhm. dem marché jënd suñuy fere parce que lii nag day soog am nag. lii day soog am Auchan nga jaay lii nga jaay man marché laa xam. ak ñeneen ak ñeneen. nit bu nekkee ci dëkkam di kaas li nga xam ne mooy devoiram. dañoo xam ne lii devoiram la. la dara jékki-jékki rek ni tës ci sa kaw. muy yii xew oxsang yooyu. waaw ñoom am nañu droit kaas seen seen seen seen seen dëgg la waaw. Mhm. waa marché bi aussi. Mhm. liñ leen di dimb liñ ñuy dimbale. Mhm. mooy yokk gi leen dox ñu bàyyi ko. bu ñu dikkee di yokk luy jar dërëm ñu jaay ko ñaar surtout nag tabaski ak korité. ñu aj prix yëpp ñu aj prix yi pompiteer bu dee jar téeméer boo demee ñu ngi la ko jaay huit cent wala huit cent cinquante. dëgg la soble bu dee jar quatre cent ñu ngi ko jaay sept cent. Ah léegi nag ñii ñoom it dugg seeni 18 daal di génn biir osan la xaw ma lan ñëw teg. wàcce prix yi wàcce prix yi. ba mu wàcc waaye booy wàcce prix da ngay jaay lu baax. dëgg la. dëgg la waaw parce ko gën yaakaar naa ni commerçant mi ngi fi dégg na la dégg na ma euh, côté prix bi ci la ci la jëkk a ñëw mhm. di wax na rek mbokk yi mën nañu àndandoo ak ñun ci émission bi ci 88 628 14 13 su ko defee rek ñu dugg rotal seen xalaat mhm. dégg nga mbokk mi li mu wax déjà côté prix dafay daal di ñëw yokk gi nga xamante ne dañ koy yokk te teguñu ko fenn mhm. waa xam nga loolu euh, bari na consommateur yu ci wax te ñaari li ñuy wax xamuñu ko d'accord dañuy wax ni bu tabaski ñëwee waaw ñu jëndee pomme de terre quatre cent jaayee ko huit cent loolu amut tey seetlu li ma lay wax wala ñuy dem Auchan di jëndi wala ñuy dem ci foofu di jëndi waaw ci ginnaaw ñoom ñu ngi doon jëndee soble saako cinq kilo bi mille trois cent waaw jamono bi may waxee boo demee Auchan di nga ko jëndee mille six cent lu waral loolu voilà li waral loolu mooy lépp lu bari waaw yomb waaw waaye lépp lu manqué jafe jafe lii waral soble bi dem ba. mais ay Auchan ak yooyu moom koriteeg nangam sàngam dañuy def promotion. non non promotion bi. waaw loolu moom ñëpp koy def. d' accord commerçant yi dañuy def li ñuy def sax moo raw promotion ndax dañuy maye. Hmm? commerçant ngay ñëw. korite jot mu may la saako soble may la saako pomme terre jox la nga yóbbu sa kër. tabaskee tabaskee ngi ñëw de dama lay wër si de. tabaskee dañ koy def dama lay wër si de. ci la ñuy dox. <laughs> kon promotion dëgg la dëgg la. Hmm. léegi li waral soble euh, tabaski ñëw mu yokk. waaw day fekk mu manqué. d'accord ndax bu soble local bi ñoree. waaw dañuy tëj soble importation bi. Mhm. jaay soble local bi. waaw léegi soble local boobu bu demee ba nga xam ne day toll ci di jeex. waaw dafa war ñi nga xam ne ñooy saytu loolu muy ministre de commerce. waaw mu xool Sénégal lan lañ soxla ci soble. dëgg la ñu ne soxla nañ par exemple cinquante tonnes. si ni mhm. ma mën a waxee rek. Mhm. tey soble local bi fi nekk mi ngi dool ci euh, dix tonnes wala quinze tonnes. waaw kon ñoom war nañoo def pexe 35 euh, tonnes. waaw nga xam ne li marché bi soxla dafi am. bu fekkee bu 35 tonnes yooyu soble importé lay doon par exemple. soble importé lay doon. d'accord léegi bu ko defee su boobaa soble bi day doy. waaw waaye ñoom duñ ko def. mais bu ngeen engagé woo commercant yi wala baykat bi engagé wu wax ne. soble bi ñuy dugal ci réew mi moo gàllankoor seen soble. te fekk événement jot na est-ce que loolu jaaduwul tam ñoom ñu waajal ko ba nga xam ne du ñu soxla soble boo xamante ni dañ koy importer. Hmm. parce que bu ñu indee bu ñu importer ñu ne seen bee duñ du jar parce que day nëb. non xam nga loolu. soble bi ñuy importer ak bi ñuy ak bi ñuy béyee ci réew mi. waaw bu ci nekk juróom benn weer lañ lay may nga jaay. d' accord soble bi ñuy béyee ci réew mi ñoo ne dañuy bàyyi 6 mois. d' accord bu jeex waaye su demee ba ci njeexintal fi jafe-jafe gi am. ci waaw waaw day tombé événement. waaw tabaski agsi na. tey soo gisee korité bi soble bi équilibré tolloo. waaw daa doy daa fekk ni day door a ñor récolte yi di génn. Mm-hmm. moo tax soble bi ñor mais bu ñu demee tabaski. Mm-hmm. nga xam ni day fekk récolte locale bi di jeex. di jeex. ñu profité génn li ñuy war a soxla mu tolloog Euh, li fi ko def. mooy war a soble di dem di yokk yokk boo xam ni day jéggi dayoo. Mm-hmm. fekk da dul am mm-hmm. Mm-hmm. lu un million personnes soxla. dix personnes am ko ci réew mi jot ci du yomb. dëgg da nga dem ba euh, ni ñu ci jotee du la gënal. di nga gis tey commerçant jëndee cinq cent. waaw jaayee cinq cent. parce que xam nga lan la ci jublu. sama client mi ngi ñëw war a jëndee ci man du ñëwee du fi fekk soble loolu naa profité jënd comme ça moom su ñëwee mën a am soble. mais dina bari na commercant yooyu gis dañuy yaakaar nit ñi li ñuy wax ñu bari duñ ko seetlu. Mm-hmm. dañuy jàpp ne dañuy jëndee 300 tey dem denc ko. ba ñu yokk ko ba yokkute am. ñu génne ko non non non demeewul noonu. d'accord ni mu demee mooy daa doyul ci marché bi li na ci marché bi doyul nit ñi. Mm-hmm. moo waral muy cher te mm-hmm. lépp lu bari yomb waaye lépp lu manqué jafe. d'accord loolu rek la. Auchan di jaay soble mbay. soble mbay fekk baax Sénégal. te eh, man loolu moom a jaaxal. la ñu def ba lu mel nii ñu di ko xeex. ñoom ñu mën a wëlbatiku jot suñuy produit produit bi mooy gis nga sànq rek euh, gis soxna soo xamante ni gis nga ñaari sachet yi ma indil fii mhm. sachet benn bi euh, sànqal la benn bi euh, bisaab la mhm. te nee naa leen Auchan amuñu marque bisaab mhm. kon fii lañ ko defaree ci réew mi mhm. sànqal bi amuñu aussi mark sànqal fii lañ ko defaree ci réew mi mhm. te yëpp li ko tax soxna si mu jóge fee dëkkam ba dëkk ñëw fii pour indi ma sachet yooyu mhm. pour wan ma naqar gi mu am ci produit boobu te fii lañ ko liggéeyee lu waral Auchan ñoom mën a jot suñu produit diñ ko jaayaat te yéen commerçant yi ngeen seetaan ko waaw non ñun seetaanuñ ko produit bu Auchan di jaay te Sénégalais yi di ko defee ñun ñu ngi koy jaay te jàpp naa ne sax ñoo leen ko gën a yombale Euh, mhm. tubaab dafa xarañ te garaaw. Mhm. day loo nit ñi ni man li may jaay dafa yomb. Mhm. donte nag am na loo xam ne moo ko gën a yombale marché bi. dëgg la waaye tey boo ko tegan nga jël prix yi di ko tegale. li marché bi jaay moo gën a yombale Auchan di jaay. d'accord ñu bari nag fi ñu teg ni Auchan dafa yombale. mooy ci bitigu koñ bi nga xam ni détaillant la. waaw xam nga détaillant. waaw daf lay dépanner mais du ci ki ngay jënd ravitaillement. d'accord def booy ravitaillé da ngay dem ci grossiste bi wala nga dem ci demi gros ba. Mhm. mu jaay la prix boo xam ne mooy gën a baax. mais du ñëpp mën a jënd grossiste. mais boo demee ba nga xam ne li nga jënd yow. waaw doyu la ci mois bi mën ngaa dem ci boutique bi. détaillé tuuti pour mottali sa weer. léegi nag li waral ñu baree bari di comparer prix Auchan ak prix détaillant bi. Mhm. Euh, ni Auchan dafa gën a yombale ci détaillant bi lañ ko teg mais grossiste yi ne ci réew mi. waaw ak demi gros yi ñoo gën a yombale Auchan téeméeri mel ni Tafa ca ni ma ko waxee démb. waaw Moustapha ndongo si la ca Castor. kaneen ak kaneen bari na wut limee da ngay jóg. muy lu am solo yaakaar naa Adja Maguette am na loo ci bëgg a rotal. waaw gis nga ci euh, fi mu fi mu tolloog waxtaanam. waaw gis nga comme li mu wax nii. waaw yéen moom mënuñoo waat ni ñoom duñu yokk. Mhm. parce que boutique bi. Mhm. da ngay dem ci boutique bi léegi mu jaay la kilo 400. waaw nga dem ci boutique bi mu jaay la kilo 600. waaw nga dugg ci benn marché bi am nañ ci commerçant yoo xam ne dañu yokk seen prix. Mhm. te loolu day dal di indi problème. waaw li nga wax ni grossiste bi mën na mën na wàññi. Mhm. parce que boo demee di jënd euh, saaku ceeb wala nga jënd saaku bisaab. Mhm. wala dara xam nga toujours ñoom ñu ngi ko jaay ay douse mille. d'accord treize mille. waaw waaw mais nga ñëw ci boutique bi xam nga lu mu la ko jaayee. mu ngi la ko jaay vingt cinq mille yu manqué mille francs man nee naa leen neenaa leen doguma sabaat man ngeen a séq sax waxtaan yéen ñaar d'accord mais mais mais xam nga lu ma jaaxal man mësuma gis sunu bitigu koñ li nga wax ci ne détaillant bi waaw dafa nekk ci koñ di la mottali mais mësuma gis kilo soble wàcc ba ñu ne tey soble si bari na kon ñu ngi koy jaayee trois cent amul amul toujours quatre cent cinq cent mmh. 400 cent fa la ñuy taxaw. mais mais mais xanaa non non. ci la ñuy taxaw de. non soble. waaw buy door a ñor. waaw. day jar sax ay cent 175. ii loolu de gën non ñun mosuñu ko yëg. gis nga ñi dëkk yoo xam li may waxee. xëy na xëy na da ngeen ko du seetlu rek. ku ci dëggu ku rek di nga xam li ma la wax. non yónni jànq yi rek du ngeen xool prix yi. non non boo yónnee da nga ko jox xaalis soble buy door a ñor. waaw boutique gu koñ bi 250 la koy jaayee 300 maximum. masuma ko ba fii may wax ak yow nii 300 la toll 350 gën a cher. 400. non 400 liy waral li ma la wax liy waral cher. waaw mooy li ma la wax. bu ñu demee ba stock bi bëgg a jeex. bëgg a jeex. Mm, mën naa dem ba 600. parce que daa amut amutul loolu rek mooy waral muy yokku. mais mais suñu door ñor bari. Mm-hmm. ay 175 lay jar 200 lay jar. waaw Adja Maguette loolu mbay moom gëj naa koo gis. Mm-hmm. mais yéen comme yéen ay commerçant ngeen. Mm-hmm. te Auchan ngeen commencé di jaay mais am ngeen am ngeen fu mu ne man a waxee ni ñun yokkuñu. ñun déglu rek. ci lii la ñuy jaay ci lii la ñuy yem. Mhm. parce que ki joge këram wala mu jóge feneen ñëw di jënd si li mu am lay jënd. dëgg la ah. Mhm. mais su ñëwee tey nga jaay ko kilo deux cent cinquante. Mhm. bu subaa bu ñëw nga jaay ko kilo quatre cent bu subaa ñëw cinq cent. gis nga julli gi di ñëw. dañ koy yokk. xam nga Auchan lu mu déparé. ak yéen. moo métti. parce que ki war ñëw ni lay damay jaayee téeméer moo mu ñëw jaar ca ginnaaw lànk ne man ne maa ngi jaay quatre cent. Mm-hmm. wala ma jaay trois cent cinquante. Sénégal dafa métti. te Sénégal lu yomb nag loolu bëgg. ñëppay daw ñëppay daw uti ko. Mm-hmm. soo demee benn yoon nag fekk fa loo xam ni baaxul dootoo fa dem. Mm-hmm. ndax nit moom benn yoon rek nga koy naxee. d'accord waaw. waaw maanaam nag Auchan jooju nga may xaw a sonale tuuti. waaw man jàpp naa ni. Euh, euh, baaxul ci consommateur yi pour man. dafa laa jëmoon d'accord d'accord. pour man d'accord gënut ci ñoom. d'accord ndax dafa gënul ci réew mi. te consommateur yi ñooy réew mi. waaw d'accord tey lu mu la jaayee tey euh, fukki dërëm wala mu jaayee la ko muy jar cent cinquante mu jaayee la ko soixante quinze. Mm-hmm. dafa la koy def pour xëcc la nga bàyyi ña nga amoon démb. dëgg su ña démb dee ba jeex. waaw nga des feeg moom mu rey la. mu rey mais loolu <laughs> orange rek def na ko déjà tey. waaw d'accord ñun ñëpp ñu dem abone fa. Mm-hmm. dem na ba tey euh, internet bi nga doon am gañatuut sax dagg na ko. Euh, kiy jaayaat nga xam ne da doon jënd di jaayaat grossiste yi. Mm-hmm. tey nee la boo jaayee orange money 1000 francs 7 francs nga boo jaayee 500 francs 0 francs ah. est-ce que loolu yéen a koy kaas fi ngeen ko war a kaase. waaye nit bu la ëppee doole ëpp la ay moyens xeex moom du yomb. du yomb léegi nag Auchan mi dafa ñëw. Mhm. multinational la. waaw 33 mille milliards mooy budget juróomi junni milliards lay gagné par année. bu ngeen mën a xeex moom jaay bu ñu jaay leen ma Sénégal ñu jaay ko ko mën na tracé waat tali yu ko gën tabaxaat dëkk bi te xaalisam du jeex kon kooku su ñëwee ni day da nga koy boo ko ñëwee ni ko da nga koy dugal sa biir réew mhm. da nga koy contrôler dëgg la tey Sénégal bu fekkente ne dafa soxla ñaari téeméeri supermarché mhm. bu Auchan ñëwee bëgg investir da ko naan autorisé naa la dix wala quinze. Mhm. ba bu ëllëgee bu ab Sénégalais amee ambition bëgg ko concurrencer. Mhm. am fu mu taxaw. donc dañ ko jaay marché bi yëpp. ñëpp ñëw jox ko deux cent maa ngi dégg ñu ni deux cent quarante lañ ko autorisé pour mu def ko ci territoire Sénégal. deux cent quarante loolu su ko defee jeex na commerce day dee te Sénégal amuñu dara lu dul commerce. benn métier moo fi am commerce. pétrole dañ koy door a dégg te deux mille vingt et un la jëm. kon ci nga yëngu ci laa yëngu ci la keneen ak keneen di yëngu mhm, mhm. ñi nga xam ne ay fonctionnaire la ñu leen di fay état bi leen fay matuñu sax cinq ci réew mi dëgg la leneen li nga fi gis lépp ci commerce lam amuñu leneen dëgg la dëgg la mhm. te Auchan nag politique bi mu teg waaw ak doole ji mu indi su continuer commerçant yëpp koy daanu ak baykat yi industrie yi dañuy daanu sàmmkat yi dañuy daanu baykat yi dañuy daanu parce que looy importe di ko jaay moo la ko dàq dëgg la xam nga ñëw na tey di jël produit sénégalais yi di ko jaay waaw xam nga loolu la ci jublu xool lan moo dox gis nga bu ko leeree ni diwlin bii ko Masamba di jaay euh, dafa dox lool day ñëw dem France ga dëkk. Mhm. am nañu diwlin mu def ci étiquette Auchan. Mhm. importé ji ko indi. daaneel mbaa mu samp fi usine waaw daaneel Masamba mii. ma ne ko mbaa mu samp usine am boobu importateur daanu. dëgg la baykat yi. waaw maa ngi ay information kan yi jox nañ mhm. leen suuf su bari mbaan. waaw. ma koy dégg. waaw léegi suuf soosu suñu jigéen ñi ne ci bi. ci ci rudde ñaay di bay lijum waaw ñoom ñëpp lay rey parce que day dem bay soble euh, carotte boppam jaxutu boppam naajo boppam ñëw jaay boppam ah, même ginaar yi ci la jëm day dem ba ubbi euh, app e yi bu ñu ko signé borom poulailler yu ndaw ndawaan yi ay ay ginaari France waaw ko jaay fa la jëm dëgg la bu ñu tëjee nii duñ dugal ginaari France mu ubbi usine am yar ginaar comme ñëpp di jaay boppam bu ko defee jaaykat bi daanu baykat bi daanu commerçant bi daanu Auchan rek ne fi yor marché bi mhm. lu ko neex lay def mhm. te lii nag boo koy wax nit ñi ni waa mais ki dañoo yàpp parce que commerçant yi seen ay intérêt la ñuy kaas mais dinañ kaas suñu intérêt parce que ñun ñoo réew mi te intérêt yi ci réew mi la jëmaat intérêt ci réew mi commerçant bi li mu am ci réew mi lay des dëgg la Auchan loo fa jaay bu ngoonee xam nga ban banque la koy dugal waaw ñaari banque BCIS la koy dugal e même banque yi ci réew mi sax dañuy daanu Ah, parce que li commerçant yi doon am di ko dugal ci banque yi ñu ñëpp dañuy dem ba doon ñu am dara banque yi dañuy tëj donc mën nañu gëm ki réewul emploi ne ñoom dañu jàpp ne day naxasal euh, nasaxal réew mi euh, ci côté boo mën a làmb tey it war nañ koo mën a nangu ndax euh, consommer local la ñu wax waaye nag wax na ko sànq parce que ñaari produit yi ñu ngi nii parce que bugguma def li nga xamante ni moom mooy publicité mais ki remarqué produit sànqalam bii na ko xoolaat bu baax ni mu ko liggéeyee ndax soxna see ko fi indi te Auchan la ko jënde vraiment mu nekk loo xamante ni nag lu doy waar la li ci nekk yëpp mënuñu koo wax mhm. waaye daal euh, li ñu mën a wax daal mooy prudence mhm. prudence ci lépp lu ñu mën a doon parce que même wérgu yaramu askan wi sax mën nañ ko nasaxal ci yii nga xamante ni moom la ñu gis euh, li tax ñu wane ko nag bëgguñu ko tàllal mooy bëgguñu tooñ nit waaye bëgg nañu itam nit ñi xam ne émission bi ñu ngi koy bàyyi xel ba tax mu déplacé woo këram ñëw indi mhm. wax li mu dund ak Auchan mais damay ñëw ci Adja màgget yow mi nga xamante ni yow yaay jaboot nekk ci kër gi. Mm-hmm. am na ci loo xamante ni euh, tey euh, sa revenu lay doon. Mm-hmm. parce que yow bu fekkente ni da ngaa tegoon sa leket. Mm-hmm. defar sa sanxal ba mu baax. jël sa potu liibar teg ci. ku bëgg a laax ñëw ne la Adja màgget jaay ma ñaari poti sanxal. dëgg cere ja noonu. Euh, mango ja noonu bisaab ba noonu. te it lii ma la limal yëpp léegi wax na ko démb nee na gis na ne reenu senjeeñ rek. moom la Océan dul jaay. dëgg la lii ma la limal yëpp ñoom dañu koy jaay. tey moom bénéfice ba mu cay am ma nga jëm ci ay doomam yow bénéfice bi nga am ci nga doon waajal tabaski bi est-ce que loolu itam nekkul gàllankoor ci yéen. si nekk na gàllankoor. Mhm. gis nga Océan. Mhm. Sénégal yi ñoo war a am fulla. Mhm. xam ni mbayan boo toggee sa ceeb ba mu ñor. nga di koy yàq ci kër gi nit ñi lekk. waaw nuróowul la ki togg ceeb ma ba pare. teg palaatam ëmb ko romb la di dem. dëgg la. te loolu mooy Auchan ak ak ak commerçant yi. Mmh. dëgg la bisaab. Mmh. bisaab li nga wax noonu. bu ma tegee sama potu lii ba teg sama leket. wallaay teg sama sànqa teg sama sunguf di jaay. Mmh. lu ma am ci sama biir kër la jëm kër gi mooy réew mi. dëgg la Auchan fa mu jëm ñun jëmuñu fa. ñun fi ñu jëm mooy Sénégal. Sénégal nu ñor. gis nga ñoo ngi waxtaan léegi ñu ne Sénégal amatunu dara moomatunu dara. waaw. lu nu am da tubaab yee ko moom wax naa leen démb nee naa leen pétrole bi tubaab bi euh, tali yi tubaab bi yëpp yëpp tubaab d'accord ah mais nun nun ay Sénégal la ay nit du ñu ñu ñuul la ñu mhm. Sénégal yi nag ñoo war a am fulla mhm. xam ne marché ba nu nekkoon démb ak bërki démb mhm. nan fa dem man de man bugguma dara yow man bu ma ab marché laa koy jënde dëgg la waaw li tax nag may wax ak waa marché pour ñuy ni dama bëgg Sénégal yëpp daw uti commercant yi waaw parce que lu dagg moromam lay fekki moromam lay fekki waaw ki nga xam ne boo amee yóbbu mhm. waaw bokkul ki nga xam ne boo amee investir ci dëkk bi mhm. te dëkk bi la ñu am Sénégal la ñu am dëgg la yéen ñu del si waat nag waaw ñu ne ñu xam suñu bopp xam leen ñuy jaay mhm. suñ dee jaay yow man bu ma dendoog yow ngay jaay lii di ko jaaye le naa ma kii maa ngi ko jaayee cinq cent franc man ma ñëw jënde kam ma ñëw di jaaye quatre cent ñi nga xam ne dañoo bëgg lu yomb ci yow lañ jëm jamono métti sax jamono te jamono ku la nit ku jox benn 400 francs la jaay ma wóor na yàlla am na lu manqué këram. dëgg la mais ki ñëw indi ki ñëw ki nga xam ne dafa ñëw indi juróom fukk wala juróom benn fukk ni la jaay ma. Mm-hmm. nga jaay ko su ëllëgee ci yow la jëm si. d' accord est ce que est ce que seen bopp. ah prix yi daal moo moo man mm. na ko sénégalais xoolal seen bopp. parce que dama lay wax loo xam ne boo demee tay tay gis ko. Mm. kilo poivre boo demee ci marché bi. ñun commerçant yi ñu ngi koy jaayee waaw soo demee Auchan mi ngi ko jaay sept mille six cent. lu waral loolu. gën a cher xam nga moom dafa muus. dafa xool li ñàkk fayda nga xam ni sénégalais yi ñu bari dañ koy conseil muy ay meew ak ay suukar ak yooyu noonu. Mm. mu kase yooyu bu ko defee ñoom yooyu la ñuy gis. Mm. mais yi am solo fa la leen di rendee mais xoolal ñun ñooy jaayee kilo poobar. 3000 francs nga dem Auchan di ko jëndee 7600. Mm. Ah, ah, nga jëndee kilo poobar ci ñun. 3000 nga dem mu la ko jaay 4900 bidon 20 litres. diwlin diwlin. ñun ñu koy jaayee quinze mille quatorze mille sénat mm-hmm. soo demee Auchan mi ngi la ko jaayee dix neuf mille six cent kon gën a yomb gi pour man amut dafa am yenn yoo xam ne ci lay arnaage nit ñi nax leen ci ni leen maa gën a yombale kaay leen mm-hmm. mooy yooyu nga xam ni yu ndaw la yu ndaw ndawaan yi yu ndaw ndawaan yooyu mais yu mm-hmm. mag yi nga xam ne yow doo ci baxel xam nga tubaab noonu lay def day daw ci samayen waaw sëñ Blas dañu woon njàng mu njëkk mooy fexel ba kenn du la nax waaw bi ci topp mooy deel naxe njàng mu mooy koy nax du xam ne mi ngi koy nax. Auchan mm-hmm. fi mu toll nii mi ngi nax Sénégal yi di dund ci seen kaw te a mel noonu da lay nax te doo yëg ni mi ngi lay nax. te la lim la njëkk andil mooy. Mm-hmm. dala wan ne yow mënoo dem sans man. pourquoi ñu mën ñu bëgg a gëm ñoo dem sans Auchan. ah mais Auchan bët ki démb la. mais yàggu fi yàggu fi. ñaareel ba mu andil la mu andil la loo xam ni amoo ko mooy wan la ni yaw mm. da war a avancer. Mm. jamono bi day avancer wala. luxe luxe. Mm-hmm. mais luy lixi lixi. voilà naam war nañ caa dem voilà naam war nañ caa dem. waaw mais étape par étape. comme amuñu doole ñun ay réew yu sous-développé lañ. waaw pays yi gën a ndóol lañ bokk. Mhm. da ngay xool li ngay def mooy lan. Mhm. mais doo xool koo xam ni yow lambi lambi lambi béy. nga mhm. jël bukki dugal ko ci xam nga ni jooja làmb la la la la waaye waaja waxam dañuy dañuy boole bukki ak ak béy waaw euh, euh, commencé gun bëre bi bukki moom commencé naa jël di mariner béy ah. te bëreegul ah. kon buy dee na. kon da leer moom da koy da koy da koy da koy daan da rek. da koy rek waaw Auchan tamit boo gënee dugg ci suñu marché bi. Mm-hmm. tolloowuñ dañu wax tey par exemple ni ma la doon waxee. Mm-hmm. nañu wax ne gouvernement France ñëw. Mm-hmm. gouverner Sénégal ñu bàyyi gouvernement bi gouverner ba xam kan mooy gagné. dañoo tolloowuñ ni bañee nag keneen ñëw di yor suñu ministère de commerce. di yore suñu ministère de la santé ni ñu ko bañee nga xam ñoo ko yore suñu bopp. suñu économie réew mi ko bëgg a téel suñu bopp parce que tubaab bi day préparer ëllëg. ba buy doomam ñëwee man a yilif suñuy doom mhm, mhm. lenn na fi amal nag nit ñi di ci góorgóorlu tabax Sénégal yor ci diini ji di ko doxal muy commerce mhm. tey diini li fi li koy suqali ban daara nga gis état di ko subventionné wala mu koy fay ñooñu commerçant yi képp la ñooy jóge ci daara ya ñëw base numéro ñëw commencé di liggéey di yaxantu di am dara delloo ko ci daara ji boo demee kokki boo demee kokki dugguma la boo demee kokki tey bëgguma wax sax di cité mais am na ko ñu Abdou Aziz Sylla dafa investir ngir yàlla ak l'islam ëpp na milliard moom Abdou Aziz bi mu amee delloo ko nga gis hmm. hmm. nga xam nga dara hmm. tey bu commerçant yi téewoon seen loxo tey réew am nekk ci crise parce que ceeb bi commerçant sénégalais ñoo koy bàyyi jëmu leen foofu non ëpp naa def xeex bi moom ku ne kii li nga am comme moyen moom ngay xeexe dinañu xeex ba fa ñu suñ doole yam suñu gañee bu ñu gañee alhamdulilah ndax tamit histoire dina nettali ni bi tubaab bi ñëwee bëgg a jël économie réew mi mhm. am na ñu jógoon bañ suñ mhm. ci yàlla mayee ndam alhamdulilah suñ ci yàlla mayee ndam it histoire loolu bind bañoon nañ waaw muy lu am solo yaakaar naa ni waa UNACOIS waa jàppoo euh, la ñu àndal ànd ak góor gi démb ñu ngi àndoon ak Leyti di waxtaane lépp loo xamante ni coow la euh, dox diggante commerçant yi ak Auchan Auchan nag ni ma leen ko waxee tàmbalee lawal ay banqaasam parce que même Yoff fi ñu nekk côté Nord Foire da ngay gis ne am na fa benn mais ci SDE bi ci kanamu imprimerie Tandian am na fa benn mu nekk yu jege yoo xamante ni te muccuñu ci parce que jaaykatu fëgg jaay bi muccul ndax man Auchan yi ma xam day jaay fëgg jaay Auchan dama ni la xam nga fan la tàmbalee. waaw ci géej gi ba ci oto. ci géej gi koo yaakaar tey ku yaakaar ni yow Auchan du la laal daa ak seegul ci yow. kon ñëpp a war a jóg. ñëpp a war a jóg kilifa diine yi sax damay wax ni dañoo war a jóg. parce que Auchan bu ko nee addiya dootul am saraxe dootul am asaka dootul am vie sociale bi ñu tàmm. tey commerçant boo ci dem tey bu la ubbilee carnet nga waaru ci yàlla mhm. li ñu ko yoreel ëpp ñi toll am capital dix mille dix mhm. leen yoreel ëpp na trois millions ñu yoreel mhm. benn commerçant booy dem boo xam ni yoreel liñ la ay bor dëgg la ndax xam nga lan moo koy waral lu tax salarié bi day ñëw salaire am du ko doy ci mois bi nga lebal ko bu weer bi dee mu ñëw fay la léeg-léegi sax mu yoreel la bor wala bëtiku leneen dab ko te yóru nga ñëwaat ni laa ah, sama doom di dafa feebar ma bëggoon nga dimbali ma abal ma tuuti ba weer bi dee ma ma delloo la. dëgg la vie sociale boobu nga xam ne moom la Sénégal xam dimbalante boobu fi am. Auchan mm. dina ko dagg parce que Auchan du leble du saraxe du maye du génne azaka te ñaareel ba ñu ngi la wax day créer emploi. Mm. créer emploi day rey emploi. ndax bu bu nasaxalee commerçant yi moom rey emploi la. waaw benn marché ci Sénégal bu daanu benn marché. Auchan mm-hmm. yi fi nar a def yépp li ñuy employé benn marché ci Sénégal li mu employé Auchan mënu ko benn marché. te Auchan li muy def dina daaneel marché yépp daaneel économie réew mi kon jàpp naa ne moom créé wul emploi ñaareel ba xam nga emploi Auchan ñàkk pexe waaye yow bëggoo sa doom di jaay sàngara déedéet bëggoo sa doom di rayoone sàngara déedéet te tey ña fa de di dem di fa ñu leen di jël di leen employé ñoo ngi fay def ndax nee amuñ pexe di nga ñàkk pexe yow bay jaay sa bopp wala nga ñàkk pexe bay jaay mm. sàngara bi yàlla gën a xaraamal ah, tey emploi boo gis Auchan ñu néewa tudd wala Paul ñi Moustapha lañ ci ñi am ne ñi beneen tur boo xam ne ay turi jullit lañ. waay war noo laal sàngara. kon maa ngi alerté yi nga xam ne ay jullit lañ seen doom di liggéeyu Auchan dañuy jaay aw ñoolu te aw ñoolu ab jullit koo jaay waru koo rayonné waru koo pilé waru koo transféré kon jàpp naa ne ñëw na. ray suñu économie waaye ñëw na yàq suñu jikko ñaareel ba yow booy dem Auchan da ngay ànd ak sa doom waaw sama benn xarit nee na carrément dem Auchan wala ànd ak sama doom bu ñëw ba jàpp ay nekkee ni ma papa jëndal wi mu jàpp ay na kenn ab la. sàngara ne ko papa jëndal bii. ba baaxul xam nga ni kooku kon su màggee mën naa dem jëndi sàngara bi te du ko kon li muy yàq moo ëpp li muy defar. jàpp naa ne amul dara loo xam ne Auchan dina ko indi Sénégal xam nga jariñ Sénégal li tax invité yi am solo parce que dañ la indi ci leen man man déjà réer naa sax ay na kenn sax man xaw ma ko déedéet xaw ma ay na kenn benn ñaareel ba marché Gueule dégg naa ñoom tamit ci seen problème yooyu la nekk. waaw xam nga xam nga sunu. dégager leen ba pare bëgg faa tabax benn Auchan boo xam ne. commerçant yëpp mais maire ba nee na xamul Auchan. déggu ko déggul Auchan yoonam nekku ci. yoonam nekku ci nee waxul ak Auchan. Ah, ah. waaw xam nga loolu sax man maîtriser wu ko. trop waaw man ba man moom dama ko dégg ci journal waaw man ci bi laa ko suñu mairie. waaw ah man de man dese naa leen a parce que hmm. boo xoolee tey li Auchan def Gibraltar. waaw dagg école nationale école. loolu Auchan xalaatu ko France. déedéet ab école bu xale yi jàng école yi jàng la ñu dagg fii ci Médina jox ko jox nga dem nga dem nga dem parcelle dégg naa ñu ni Moussa Sy jox na ko centre culturel bi. Ah. mu bëgg faa tabax Auchan ban commerçant bu milliardaire sénégalais bu doon laaj ko ko da koy dégager. mais est-ce que yéen pare ngeen pour investir ci yu mel noonu. mais nga dem voilà non investir ci yu mel noonu bañ ko defee yàgg na. fii supermarché am na fi yoo xam ne ay sénégalais ko moom 100 pour cent. fu mu ne. ci Sénégal bari na. siiwul kañ la woon. ba ñu créé prix du yàgg. ah prix du sénégalais yi ñoo ko moom. Serigne Mboup ñoom ñoo ko waa Kër Daara moom ñoo ko créé woon. d'accord ba tey jii may wax mi ngi dox seen teraanga mi ngi dox euh, euh, au boobu euh, kii nu mu moo prix mi ngi dox EDKOL mais ñaata boutique la créé ci biir dëkk bi di jaay qualité. mais est-ce que ñooñu ñu ngi ci seen ginnaaw yéen. non ñëpp pël suñu ginnaaw bépp commerçant boo gis muy jënd ak jaay bi xam ci économie Sénégal rek mu ngi ci ginnaaw ina kaw jàppoo d'accord te fas na noo am nekk benn xeex-xeex bi yàlla na leen ci yàlla jàppale en tout cas euh, fi mu ñu dugal sànq ci xale yi yi ñuy gis mu nekk à leur disponibilité loolu bokk na ci li muy yàq mais aussi sunu doom yi koy jaay te kenn ku ne diine ñor la jamono bii ñu toll te mu araam kuy mag ku ne rek diine ñor na la rawatina ci sa njaboot donc euh, yooyu lu jar a bàyyi xel la ñu interpellé waat ci nit ñi te xam ni mar naan ku mun a xanaan petit bu rob ni ubbee da ngay ruus te genn wàllu kasara moo gën kasara te bu ñu moytuwul ci kasara la ñu jëmee en tout cas ci côté boobu mais Adja Maguette nga ñëwal ma ci ñoom itam seen côté côté hygiène parce que dañuy tabax marché ba mu rafet ñu jox leen ko mm-hmm. du ñu yem ci place yi ñu leen jox déedéet génn nañu meneen mbaar ci biti génn saako yi lang ci biti mm-hmm. nit ñi du am fu ñu dawal oto du ñu am itam foo xamante ni euh, fi nga xamante ni fa la ñu war a mën a sax jaar ak seen tànk sëñ Babacar nekk ca Yoff bitigu sëñ Babacar maa ngi koy nuyu bu baax a baax mooy ki nga xamante ni moomay jaay ravitaillement mhm. mi ngi ci marché Yoff maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu soxnaam su nga xamante ni sama xarit la sama lépp la euh, côté boobu itam foog nga xool ma ci xam nga côté boobu dinaa la jox benn exemple boo demee marché Thiaroye waaw magasin yi ñu ngi rang kenn nekku ci commerçant yi dañoo génn ba ci biti mbayang su tawee boo fa demee sa yaram day daw danu toog ci wetu taw bi jal carotte bi jal navet bi boo ci jëndee itam il faut nga jënd ñetti litre eau pour man koo def sa frigo <laughs> xam nga yooyu itam baaxul pour bëgg nit fu mu nekk wërsëgam fekk ko fa tabaxal nañ leen marché léegi civiliser tuuti voilà toogal ci sa kii bu ma waree jënd yow damay jënd ci yow dëgg la mais da ngay ñëw ba ci wetu mi nga teg kee ñëw ba ci ndox mi mu teg ba boo fa demee yow doo bëgg sax li ngay jënd wala boo ko jëndee boo ko raxasi ko eau de tamit sa boo koy lekk il faut sa xel dem ci yooyu. dëgg la il faut ñu am hygiène. Mm. parce que foo nekk yàlla nekk fa. Mm. Ozan mën naa def fu ne mën naa tabax fu ne. waaye du déborder. mais déborder wul dañuy toog di jaay seen njaay dañuy nax nit waaw di leen xëcc seen bopp mais koo xëcc ci set mu ñëw. Mm-hmm. d'accord mm-hmm. koo xëcc ci set man li leen di wax rek. Mm-hmm. waaw yéen ndax sànq nee naa lu dagg moroom lay fekk. ñun yéen la ñu am nag. waaw te ñun nu nee kon bu ñu demee ci ñeneen di jënd. seet leen ñooña la ñu def lu mel noonu te lu set ngeen nag oh, continuer nag di ko def. waaw loolu moom wala bu ngeen ko defoo nag ngeen commencé di ko def. Mm-hmm. waaye jël lu xaw a déborder teg ko ne ah, ah am na ci nit ñoo xam tam dañu naïf. dëgg la duñu xool intérêt réew mi. duñu xool sa intérêt seen intérêt la ñuy xool. d'accord ndax intérêt bi mooy wér. lan ngay tontu foofu. waaw loolu dëgg la xam nga Sénégal moom. Mm-hmm. li fi jaar yoon bëriwul. Mm-hmm. foo laal rek am na fa ma ngay ma ci eh, tey commerce bi ñu ngi ci ñun mm-hmm. waaye xam nañ am na ay rëq-rëq dëgg la waaye nag bu fekkente ne yow sa doom dafa génn ci mbedd mi oto laal ko mm-hmm. fi ne dinaan yaay ji lu tax nga koy bàyyi mu génn ci mbedd mi jël nga yóbbu hôpital faji ko mm-hmm. toll foo xam ne Auchan ñëw na ngir rey réew mi nañ saafara Auchan ba pare lii suñu jàngoro bopp nag ñu def ko póotu mbiir parce que am nañuy jàngoro marché boo dem tey am na problème dëgg la waaw leneen li ci des nag marché bu salte bi muy wax loolu du rôlu commerçant tey marché Castor. 160 million lay génne di ko dugal ci gafaka mairie bi. mairie bi mais bale sax mairie Castor du ko def. Hmm. at ba at la ñuy bale te gis nga li ci gën a garaaw. mooy bi mu ñëwee di bale marché bi. waaw bis bi Auchan di ubbi la tëj marché bi pour nit ñi daw xooli Auchan. la tëj marché bi ni damay bale. ba mu balee ba dëpp jaar fi ne am ngeen wujj wu ngeen dul xam fu ngeen ko yàqale de moom moom moom la maire bi Castor bi wax. moom moom moom la leen wax. moom la ñu wax ne am ngeen wujj wu ngeen dem dem tëj marché bi dañuy bale marché bi. bis bu Auchan ubbee mu jóge ca ouverture ba jaar ci marché mi am ngeen wujj wu ngeen dul yàqale. d'accord waaw boobaa ak léegi kenn balewaatul marché bi marché bi commerçant yi ñoo koy balee. am na ñoo xam ne ñoo ngi fay bale tey. baat boobu naqariwu leen. Ah, ah. non naqari nañu parce que suñu homme politique man xaw ma dañoo am complexe man xaw tubaab yi da leen est que du nekk ay ay est ce que du koom-koom ay yot patriote lañ mais du <laughs> que mais koom-koom boobu nga xamante ni euh, Auchan mi ngi koy dugal ci réew mi. voilà non du koom Auchan dugalul koom-koom. dama lay wax nee naa la marché Castor cent soixante millions lay dugal. waaw. ci keesu keesu keesu. par mois du dugal ci keesu mairie bi 15 millions yu mat par at. Hmm. kon moom. bu Auchan bu Auchan amee doole moom day daanu moom parce que 160 millions yu génn sa kees moom da ngay daanu te 160 millions yooyu mënan na chaque mois mu bale marché bi. Hmm. organiser waat ñi seen table euh, euh, teguwul ci yoon muy génn def leen nii def leen nii def leen nii. Hmm. di waxtaan ak nit ñi duggante ñoom. li ñu war a def ñu ne ko def. Sénégal li li nekk ordre bëriwul lépp désordre. waaw secteur boo dem rek. am na désordre am na bu ci laal te méttiwul te muy lu am solo yaakaar naa ni bale bi tam cet gi euh, maire yi nañ ciy jàppale marché yi. ci la bokk euh, comme ni nga xamante ni rek noonu la ko maire Yoff defee ci ñoom laay jël exemple parce que fa laa nekk euh, damay gis mardi ak jeudi. sama buntu kër toujours yaa ngi gis jigéen ñaa ngi bale non seulement loolu création emploi la mais dëkk bi dina set dina tax itam ñu naw la donc sunu maire ñu ngi ko ci nuyu bu baax muy le ministre de la santé Abdoulaye Diouf saar mm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokk yàlla may ko wér waaye itam may ko soxnaam soosu première daamam di Mame Rokhaya Diouf euh, Mame Rokhaya Thioune maa ngi ko ciy nuyu bu baax a baax di ko ziar euh, di kontaan moom du bañ Diouf ji ndax Diouf Sarr mm-hmm. donc euh, Mame Rokhaya nuyu nañ la nuyu Aïcha sama rakk ji di ko ñaanal jàmm Euh, léegi li ñuy def rek mooy dañuy daal di dem ànd ak waa régie euh, ñu seetaan benn page de publicité tey Aïssatou moom bëgg naa sax mu may ma benn keesu meew ma jox ko sama yaay ji Adja Maguette euh, su ko defee mu yóbbaale ko xool meewu Sofia ni mu mel moom du ko laaj commerçant yi parce que moom xam naa ni dox na ci seen bi yow da ngay jaay Sofia. dee kii boog moom ñun nag Jadida la ñuy jaay. ah kii balaa dem loolu comme comme comme xam nga Jadida 100 pour cent sénégalais. mais moo ko yor. Sofia baax na de meewu Sofia yow comme doo consommé. sama yaay lañ ko tuddee sax moom man dina baax ci man trop trop. meewu Sofia Sofia waaw. waa ndax vitamine ba ca nekk tax vitamine am solo sax. ñu dem seetaani ji publicité bi dellu si waat àndaat ak mbokki mbokki ci émission bi. koy sàmm ni mu waree seen méew pëndax Sofia muy dellu si si emballage bu bees ngir sàmm ni mu waree méewu nag pur bi mu doon te A D Sofia moo gën a neex a xóoyan yu am maanaa Sofia foo ko woomul jërëjëf mbokki téléspectateurs yi dellu siwaat nañu euh, ni ñu leen ko waxee rek euh, nga ne sama meew mi xàmmee woo ko woon. Sofia non naa ko Sofia. waaw Sofia meew bu neex la bu am solo. waaw boo xam ne vraiment. bari vitamine maa ngi Sénégalais yi dem jëndi ko. est-ce que vente bi dox na. Sofia waaw. waaw dox na dox na parce que. meew bu am qualité la bu baax la. jërëjëf Adja Maguette yoo xam nga meew Sofia. bu baax gis nga Mbaye ak meew Sofia xam nga man sama yaay Sofia la tudd. waaw. far nag ñun ñoo di meewu Sofia mu am qualité am quantité. waaw ba pare bari vitamine. hygiène ba baax lool. te kaay ma wax la nag. gis nga boo jëlee potu ndaa yow mag yi. Eh, yi jaar eh, ñaar fukk nga def ci ndoxu glace ba mu digg nga sotti ko woyaani ba ñëw naan ko da ngay nelaw da ngay jàppalees loolu la <laughs> parce que géwal yi ci loolu la ñuy dox donc euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a a baax dellu si waat euh, ci émission bi dex na rek euh, mbokk yi gars yi bira seetal ma téléphone bi qu'est-ce qui se parce que démb wax dëgg yàlla ñëpp wax nañ ne dinañu participer ci émission bi wax leen ci naqari en tout cas nag bu fekkente ni état wala mairie moo xam ku mu mënti doon dafay dox ci xool li population bëgg mu di ko def mooy que ni la majeure partie bëgguñu Auchan nekk fi. kenn nga noonu ci ligne bi ñu jël ko allo allo allo voilà ñu ngi koy xaarandiwaat euh, waaye ñu ñëw ci xale bi nga xamante ni dafa réer euh, mu ngi tudd Adama Ndiaye Adama Ndiaye papaam mu ngi tudd Pape Mouhamed Ndiaye. Euh, xale bi nag mu ngi noonu dafa réer ay mbokkam képp koo xamante ni xam nga ci moom dara rek woo ko ci 77 561 56 14. waaw Adama Dieye la tudd Adama Dieye euh, papaam mi ngi tudd Pape Mohamed Dieye euh, numéro téléphone bi 77 567 561 56 14 77 561 56 14 Adama Dieye boobu ku ci xam dara di doom ci Pape Mohamed Dieye nga dimbali ci ay mbokkam numéro yaa ngi noonu déjà affiché wu ci écran bi ngeen mën ko jël euh, su ko defee rek jàppale ko ndax bi mu réer rek léegi léegi mu def ay fan te wax dëgg yàlla ay mbokkam jaaxle nañu. ñu dellu si waat ci li nga xamante ni moom mooy euh, émission bi di na rek ñu ngi xaaral ni mbokk yi ñu mën a dugg indi seen participation ci deuxième partie bi Adja Mag ajaa Maguette waaw dafa mel ni kenn ngi ci ligne bi allo. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax. soxna mm-hmm, Mbaye tur bi naka laa fooy wootee. ndox euh, du ma bëgg a leb tur bi nag. waaw yokk kàddu gi tuuti. <laughs> waaw du ma bëgg a leb bi. dama bëgg participer rek ci émission bi. gars yi laalal leen ma retour bi. voilà allo allo. waaw man ne dama bëggoon bokk ci émission bi. ay ci yow rek la déglu. waaw maa ngi nuyu sa invité yi. d'accord. waaw léegi nag man euh, commerçant bi jàpp nga turam sax laa laay laay waxal ndax ci waxu Auchan bi. waaw. parce que moom dafa wax ni que Auchan day nax Sénégalais yi. Mm-hmm. mais moom tamit dafa war a xam ne que Sénégal yi du ñu ay dof. day ay nit rek ñoo fi nekk day nax Sénégalais yi mais da war a xam ne. Sénégal waaw loolu commerçant bi yi nga invité wax. waaw. waaw dañuy nax Sénégalais yi parce que dañ leen di jaay yu sew sewaan ñu wàññi ko. Mm-hmm. ay joxe exemple ay poivre ay nangam yooyu. mais fii kenn dootu fii nit ñi dañu jàng. même ñi jàngul mais di jàngul. di dem Auchan ba la ñu fay dem. Mm-hmm. dañuy laaj ci prix yi comparé. Mm-hmm. soog a dem. d'accord. bu ñuy bu ñu bu ñu poivre yooyu muy wax mu gën a cher sur le marché. Mm. kenn du fa dem di ko jënd dañ dem jënd ko sur le marché. mais ñoom bu ñu xool rek ni que seen intérêt parce que nag dañu waxante dëgg. Mm-hmm. commerçant sénégalais. waaw ñoom seen intérêt la ñuy xool. d'accord ñu ñooñu ñoo yore suñu xaalis di dem marché di dugg ci. Mm. xam nañ di fa xew. Mm-hmm. góor gi mën nga wax kenn doful bay dem romb marché gis moins cher. Mm-hmm. di favoriser au champ di dem di jënd ci ñoom plus cher. dëgg la. loolu xel sax nangu ko. Mm-hmm. ba pare li san bi jot a wax sànq. waaw loolu aussi dama ci dama ci dama ciy dem. parce que ñoom yàkkamtuwuñ lu dul fet jot. Mm-hmm. ñu daal di yokk lépp. Mm-hmm. c'est pour ça seen ay compatriotes ñooy dem ci ñoom jënd ay sénégalais ñooy dem ci ñoom jënd. ñu sans pitié ki gis tabaski jot avec toutes les charges. nga dem marché lépp yokk flambé comme c'est pas possible. dëgg la. seen ay mbokki sénégalais ñoo fay ñëw di ñënd duñu ay étranger ñun. Hmm. mais ñu gis à côté Auchan bi feet jot yokkul wàññiwul bu wàññiwul sax du yokk. dëgg la ñoom ñu am seen ay mbokk di leen yokkal sans pitié. Hmm. duñu dem Auchan. ah kay. dañ fay dem. merci beaucoup soxna si waaw. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mën nañu wéy di participer ci émission bi mm-hmm. lan ngay dolli ci li mu wax waaw euh, li ma wax ni day nax Sénégalais yi mm-hmm. pour ma ni que ni Sénégalais yi dañoo dof mm-hmm. ndax nit dina la bëgg a nax nga yeewu ba du la nax waaw mais su ma nee day nax Sénégalais yi mooy bari na prix yu muy wàññi dana ko jëndee quatre cent jaayee ko euh, trois cent xam nga loolu du norme commerce oui lim ci jublu nax Sénégalais yi mooy wan leen ni maa gën a yombale yow mi nga xam ne consommateur nga nag d' accord nañ 100 pour cent. consommateur moom da koy jaral mu perte ci marchandise wala mu daanu. pour xëcc leen ba ngeen ñëw ak rey foofu laa naa dafa ñëw pour nax sénégalais yi. d' accord d' accord naa nag 100 pour cent sénégalais bi gis fi gën a yomb mu dem fa loolu ñun duñ ci blâmer euh, consommateur yi. d' accord que yor xaalisam di jënd. Hmm. <laughs> fii gën a yomb rek lay jënd waaye dama bëgg ñu bàyyi xel ka ni. Hmm. li waral muy yombal ba bëgg ngeen ñëw. Hmm. da koy def ngir rey seen bokk yi ngeen amoon. mais y' a pire sax parce que bu leen mu door a commencé nag di leen ray yéen boobaa benn jëndkat a fi ak benn jaaykat benn mbokk wax na ma ne ma da ngay dem ci ñoom nga fekk leen ñu affiché ne lii deux cent lay jar ah, voilà affiché bële ne trois cent muy cinq cent mhm. nga affiché ba cent franc muy six cent mhm. ñu affiché beneen quatre cent muy mille franc mhm. tegal foofu sa loxo ma jël kii ci ligne bi ba noppi mbokk allo allo oui waaw damaa bëgg a participer ci bi. yaa ngi en direct ñëpp ngi lay dégg tur bi naka la. man xadi chinois. xadi chinois xadi yow rek la ñuy déglu. waaw allo. allo xadi silla. waaw. yow rek la déglu. waaw maa ngi wax ne en direct. yaa ngi en direct xadi ñëpp ngi lay dégg. waaw. Ah, waaw xadi fa nga dimbali ma ma dimbali la ay ca ci naka xadi ndeysaan dagg na xadi euh, mun na ma woo ci 77 534 91 85 ma leeral tuuti nag baal ma tuuti euh, ñu bari dañ may woo ci dama buggoon nga utal ma liggéey mm-hmm. mm-hmm. ñu bari itam bu ma joxee numéro bi dañ may woo dama gis da ngay def social da ngay dimbali nit ñi. yàlla xam na ko paas bu ma ñibbee tey daf may tax il faut qu'on soit clair. Euh, bul gis yére yi nga xamante ni euh, Asou Diallo sama jabar ja moom ma tànnal bi mhm. Pape Gueye ñaw ko. nga xam ni fay ferewoo ci dara. ñu yaakaar ne denc nga àddina ak li ci biiram. man dunduma loolu sax yaakaar nag dafa fort. Mhm. mais social defuñu ko ci émission bi parce que da ngay teg nit di ko ñaanal ndimbal bay bëgg a dee doo ci jëlee fukki dërëm. dëgg mu yaakaar ne aajoom faju na. soxlaam weeru ci te fekk boobu dara dara liggéey itam sunu famille bu ma la nee am na bu dee euh, góor bu dee jigéen am na ay chômeur yoo xamante ne bu ma gisoon liggéey dugal leen fa ñu liggéey dëgg la mu wóor yàlla wóor yonante bi dëgg la dinaa ko fi jaarale sax ku gis liggéey bu mu mënti doon na ma woo ndax xale yi sunu kër ga am ci lu ñu jàpp donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax numéro baa ngi noonu donc ku mën a woote ci émission bi nit ñi dégg la jàppale la loolu bañuma ko parce que ci ku nekk ci li ngay liggéey ci ngay jaamu yàlla. Mm-hmm. mais mais coté prix boobu ma lay li ma calculer sànq 1000 francs la. Mm-hmm. loolu noonu mais boo demee ba yor seen chariot yi. Mm-hmm. da ngay xëcc di aji teg di mm. xëcc di aji teg. mais boo watatee ba dem ba ci ñoom loolu dootu la dikkee 1000 francs déedéet lan mooy problème bi. waaw maa ngi gis benn waaye bu bokk ministre de commerce. waaw di leen layal. di leen layal di leen layal. xaaral ñu dimbali kii ci ligne bi ba noppi allo. rapidement nay gàtt nag parce que ñi bëgg a dafa bari alo alo voilà ma bàyyi nga dellu fu nga nekkoon. ba mu ñëwaat naan. Mhm. bu prix bi changé xam nga dañuy wax o du yokk. waaw maanaam su jëndee doon jaay li 1000 francs tey suba mu koy jaayee 1200. waaw dina ko dugal ci machine bi. waaw mais kii doon changé euh, étiquette bi ñu def ca euh, rayon ba. mooy mooy retardé mooy tardé. d'accord ñu jël kii ci ligne bi alo asalaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatulah. ça va na def. alhamdulilah mbokk bisimilah sa participation. ñu ngi nuyu. ah dégg dégg ma li mu wax ah. allo. allo waaw. bi soril appareil bi sa gémmeñ tuuti sëñ bi te nga wax wax bu dal su ko defee ñu mën la dégg. waaw. ci kuréelu yàlla bi lañ leen wax. ci ci ay ca ñëwal sa participation mu ne. ndax dañoo wax ne Ousseyn day jaay lu yomb. day jaay lu yomb. waaw. waaw. donte day jaay lu yomb tamit ñun nangul nañ ne nit ki mën na dem bu a neex jënd prix bu yomb. wante nag nga xalaat ne. Ousseyn bi muy su fekkee bi nga am ak Ousseyn. indil boobu ku ko joxee commerçant bi commerçant bi dañu dem bokk ko ak beneen mbokku sénégalais. ndax tey su fekkee tey commerçant bi jaay na la 1000 francs. waaw. Auchan jaay na 700. waaw. waaw commerçant bu ko jëlee xëy na may na ko benn maanaam ba nekk taw. waaw xëy na may na ko keneen koo xam ne indirectement bokk na ak yow. loolu maa ngi tey sa beneen commerçant da ngay dem jënd kooku tamit may ma ko terrain li ma dëgg mooy tout court mooy ñun li ñu am suñu biir ñun Sénégal yi ñu koy féetoo ndax social dafa baax ci réew. dëgg la te boo déggee ñu naan réew mi ñàkk na xaalis ñàkk na xaalis ñun du ko waral mooy tey liñ ci mosu fii. bu nit ñi di nit fii lañ koy defee Sénégal te dara di ci toog ku demee ne orange bu toogee ne def naa bénéfice deux cent milliards jël deux cent milliards yëpp jël ko yóbbu ko France ëllëg suñu njiit yi dem ba amatuñ xaalis ëllëg ko dem toppartage yu ko le franc la leen ko mille milliards loolu mooy waral ñun tamit dañuy sonn te gis nga petit commerce bi ku ko rey mooy troxal na Sénégal. dëgg la petit commerce bi moo tax xale yu bëgg a jug yëpp am kersa ñaani jug si dem di liggéey. Mm-hmm. tey milliardaire na dem concurrence ak milliard. am na solo. milliardaire na dem concurrence ak milliard mais tey di jaay géej di jaay yéen di jaay suñu magasin koobaat yi nga xam ne moom la xale yi buñ demaan jàng daara ba wàcc. waaw ñu ngi ñëw téye ko di jaay pour am suñu bañ ko leen yëpp ba keroog ñu siy te ñu ci yor taalibe te ñu ci yor société foofu lañ jaar. Mm. te tamit sénégalais ay jàmbaar lañ ndax bu dëkkoon économie bi naar li ma ne ko yore woon. tey mën nañ ci ñun ay turi turi tur yoo xam ne tey commerçant yi ñu ngi koy jël. kon donc ku leen dooleel sa doomu réew wax dëgg yàlla bu indi leneen leneen paagaagal Auchan nag mën na fi ñëw mais ban forme la fi ñëwee tey la créé su bu ñu gis ku fi créé société ñu ne la noonu. naa ne producteur ku ko moom. Mhm. du ku ci wax société yi am ci ay étranger di ko moom nit ñi di fa dem di liggéey di jël di indi. di mhm. su liggéey mais pourquoi nga ñëw dugg ku wër 4000 milliards di ko mais day jaay géej gi pour dem jox doomam mu di jaay gerte caaf pour dem jox doomam dund. nga créé gën ñu jël ay 5 emplois 10 emplois di ko garanti ak ma. dafa xam ne sénégalais dund moo ko gën a ñor waaw. jërëjëf ñu bi loolu mooy jaay yoon bi. na parce que temps bi ngi dem allo. voilà ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk moom mu di xaarandiwaat keneen yaakaar naa ni ñàkkul loo bëgg a dolli ci li mu wax. waaw li mu wax ni day wax rek ni sénégalais bi bu la jaayee même lu cher. waaw comme par exemple Auchan jaayee na la 800 moom mu jaayee la 200. waaw mu jaayee la 1000 francs 200 boobu. waaw daanaka day delluwaat si Sénégal. Auchan nag waaw mais sénégalais xamul loolu. non waxin bi daa wax dafa wax rek. man li ma xam mooy dama 200 yi kat dama naan njëgu war ga des na ci. waaw loolu dëgg la loolu moom nit ku ne moom li ma waxoon léegi. Mm. fa mu gën a yomb rek moom d'accord nañ non Sénégal moom tout le monde ku la ko wax ak ku la ko waxul moom fa mu gën a yomb parce que même yéen bu ngeen di jënd ji seen euh, marchandise fa mu gën a seen ngeen di jënd mais néanmoins faw ñu xam ne mm. euh, lii dafa ñëw pour faagaagal suñu réew du yomb damay bañ ñu jàpp ko lu yomb du lu yomb ak fiir la bu mu teg pour fiir piège ñoom mais seen xeex bi wax naa ko démb léegi est-ce que du mujj fi soow fii chinois yi mujjee ak yéen non bokkut ñoo ñu ngi ci marché bi te. non daalu ngaay la gën jëndatu ko. daalu kay man daalu ngaay la sol. ah hmm. man moom daalu uude laay sol moom. yii yii yii sama doom ja mortaala. Eh, ñoo ma koy defaral man man uude laay consommé local laay def. uude laay sol. sama ñaw it Sénégal laa ko man tam Pape Gueye ma ñawal. kon ñu jël kooku ci ligne bi. man ki jaala ko ñaw jox ma. jaal toog men mu baax mi sunu jaal. billaay walaay sunu jaal <laughs> allo. allo salaamaaleykum waaw ñu ngi sant yàlla baax nañ ma yëkkati son bi waaye dégguma dara allo. asalaamaaleykum maa ngi woote Gabon. yaa ngi woote Gabon ay ca rapidement yow rek la ñuy déglu. waaye damaa bëggoon participer seen émission bi. ay ca sama sëriñ. Oh. Gabon allo Gabon. Oh, ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di ko xaarandiwaat euh, le temps que mu mën a dellu siwaat euh, ci biir émission bi am na lu ma doon développé ni gis naa ko bokk ministère de commerce di waaw di ko défendre waaw du loolu xam nga dafa mel ni ñoom dañoo am complexe tubaab yi bu tubaab defee sofaan au lieu ñu ni ko li nga def du noonu dañ koy nës-nësal bu Sénégalais defee lu dul noonu nag dañ koy rey tey waa ji bu mu demee foofu gis loolu euh, maa ngi saluer maître ma soxna kan waaw dégg naa def na porte na plainte Auchan mhm. parce que da lay afficher boo xam ne bokk bi mu lay jaayee d'accord loolu mooy dëgg nit ki bu dee da jàpp naa ne day consommer askan waaye du association des consommateurs muy waa beneen waa ji Mamar Ndaw la mhm. xaw gis naa ko muy défendre Auchan am na ci droit waaye man jàpp naa ne moom du consomma du du du du consommateur lay waxal moom day. consommateur donc ma maître Massokhna Kane na plainte. porté na plainte Auchan parce que mi ngi affiché prix yoo xam ni bokkul ak yi muy jaay. encaissé yi muy encaissé. Mm-hmm. ak tamit bari na loo xam ni day périmé am na loo xam ni bu la ko waa service di seen wanoon nga waaru ci yàlla. parce que ah. li ma lay wax ni la Auchan ah. respecté wun ay nègre lañ jàppe français amul français buy bëgg nit ku ne loolu muy bëgg africain. li ko firndeel mooy. Mm. ñiy dem France tey. Auchan mm. boo dem France. Mm-hmm. amul benn produit bu ñu lay jaay boo xam ne danaa la dans deux jours mu périmé. Mm-hmm. wala dans un mu périmé. Mm-hmm. produit yooyu yëpp dañ koy jël. ni nañ ko yóbbu ci nègre africain yi. chargé ko indi ko Sénégal Sénégal. bu ñëwee léeg-léeg nga jënd produit mu périmé. wala nga jënd ñun la ginnaaw suba lay périmé. Mm. parce que dañ leen interdit ni leen doo leen ko jaay France parce que baaxul ci wér-gu-yaram. ñu yenu ko indil ñu ko ñun te ñun feebar gu nekk gi ñuy bëgg a ñu ci am nañ feebaru ballonnement parce que produit bi waaye périmé boo ko lekkee loolu la jural feebar yoo xamul ngay dégg léegi tubaab bëggul nit ku ñuul te duñu bëgg mais li koy firndeel xoolal suñu maam yi demoon geeral leen ñu amee indépendance waaw fii lañ leen dajale caaroy 44 rangale leen ñoom ñëpp leen leen di fay parce que dañoo xam histoire bi man ko nettali man ko bind te bëgguñu seen doom ñëw ñu leen wax seen histoire ni africains yi ñoo leen jox indépendance ñu rey leen ñoom ñëpp. kon kon nañu roy nañu roy footballeur yi nga xamante ni ñoo leen dimbali ci coupe du monde bi. ba tax ñu yegg si fi ñu yegg si eh, diggante nit ku ñuul ak nit ku weex moom effacé ci jëmm nit ku ñuul euh, du deñ ba ni yoon la Thione Seck waxoon euh, damay toog bi Obama nekkee président États-Unis mm-hmm. euh, mu ne maqaamam nit ku ñuul dina feeñ ci ku wees weex. ci weex bu ñu yàkkamti dina ñëw. bi Obama nekkee président France. Euh, président États-Unis way wi si sama xel boobu la dem mhm. euh, ma ñëwaat encore ci mhm. léeg-léeg euh, temps bi jeex na gaa dañ fay jaare tàggoo mhm. mais bari na lu nit ku weex di nekkee Sénégal nit ku ñuul moo ko ci jàppale waaw xam nga lu tax yoro sa oto léegi nga tourné fii bëgg gaare da gis nit ku ñuul mooy ñëw jël barrage teg la na la fii doo fi jaar tubaab bi moo ko moom waaw xam nga te muy sa réew te nga war a gaare cinq minutes pour dugg pharmacie wala dara. dina ko jaral mu xeex ak yow. bam ñu nootee. complexe bam ñu nootee démb. waaw te li may wax tubaab li ci garaaw mooy. mooy bu lay xeex. Mm. day ñëw jël paaka bi ne la am daasal. Ah, nga daasal ko sa mun na rayee sa bopp nga rey sa bopp. boo xoolee bi bi ñuy def esclavage. waaw Auchan bii esclavage moderne la. bi ñuy def esclavage <laughs> ay nit ñu ñuul lañ doon jël dama lay rek ay nit ñu ñuul. jeex na xol bi jeex na kay ay ñu ñuul doon jël. Mm. di jaay si ñoo doon jaay suñu maam yi ay sénégalais ñoo doon jaay suñu maam yi tubaab yi. Mm. loolu ba tey jógu fi di nga gis koo xam ne day sol robe avocat pour solal ko Auchan ni day défendre Auchan parce que escroc yooyu neen fii ci réew mi doon jaay suñu maam yi ba tey seen sët yaa ngi fi. Mm. parce que ki mën a taxaw di défendre France. mu war a noot Sénégal nga taxaw ca kanam. Mm-hmm. di ko jiite man loolu laa la mën a jàppe nga jaare fa tàggoo. ma jaare fa tàggoo mooy di soññ suñu suñu commerçant yi. <laughs> Uh-huh. ñu gën a booloo. Mm. nekk benn. mag li ñu waroon a liggéey liggéey nañ ko. dëgg la ak si naan ñun ci suñu góor mhm. nañ góorgóorlu boole suñu bopp. Mhm. Euh, euh, nekk benn ba nga xam li nga xam mooy suñu àq. ci réew mi waaw suñu gëdd ci réew mi ñu delloo ñu ko. Mhm. parce que réew mi bu accès fii tey ginnaaw yàlla commerçant yi la. ñoo fi tabax tabax yi rafet yi ñoo fi tabax yu rafet yi ñooy fay impôt ñu defar tali yi ñooy fay impôt sax ñuy fay. ñi liggéey ci état bi. parce que li ñu dugal ci port bi di ko dugal ci impôt bi di ko dugal di ko dugal di ko dugal boo ko doon lim du jeex. man naan la moo yor Sénégal. kon nag duñ dem ba ak si fii. di nangu tubaab yi ñëw bëgg a jël suñu économie du ko téyel seen bopp suñ ko defee ñun ñëpp dañuy torox ci suuf lañ jëm. waaye nag loolu yàlla du ko seetaan moo tax xëy na commerçant yi jóg. dëgg la bëgg ko xeex te incha allah danañ ko xeex. Mm-hmm. xeex boo xam ne du ànd ak violence. Mm-hmm. du ñu taal du ñu saaga du ñu dóor mais di ngeen wax ba ñëpp dégg leen am na lu ñu yàlla may waaw muy suñu yëfi bopp danañ ko wan réew mi ak ñi jiitee mi ñi moom ñi moom ñi ñoo moom lii mm. respecté lañu ñu respecté ñu muy lu am solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax góor gi jaw moom la ñu àndaloon bokk UNACOIS jàppoo di ci nuyu bu baax Tafa nee naa leen nekk grossiste foofu ca diwaanu Yoff waaye du ma fàtte butigu Serigne Babacar itam tam ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ak soxnaam xaar yàlla sunu aaw bu ñaawul boobu ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Adja Maguette mm. yaakaar naa ni yow consommateur yi une minute rek nga dollil ma leen waaw man daal li ma leen di dollil mooy mooy xeex moom bul toog ñoom ni nu am fulla ba def seen osan ba ñëpp euh, xam leen. Mm. yor leen seen làmmiñ ak seen loxo. ak seen yërmande dugal ko ci biir. askan wi ak lu ngeen xam ba ñëpp jàppale leen. <laughs> incha allah ndax kuy xeex doo toog. déedéet dégg nga. déedéet bu ngeen toogee fii waxukaay la feneen waxukaay la. Mm-hmm. ngeen boole ci nag jëf. incha mm-hmm. ngeen boole ci jëf. wan ni leen yéen du ngeen dara. Mm-hmm. fee ngeen dëkk. ñun fii la ñu dëkk. te fi ñu dëkk dañ koy tabax. dañ koy defar. sunu doom yi fi nekk dañ leen di yërëm. dañuy dañuy du nu de. waaye nag nañ def nga xam ne maximum moom la ñu am. am na solo waaw. jërëjëf Ndiaye dernier mot rek ah, ma. léegi waaw ah defal. ayca lu gàtt rek. waaw damay wax ni lii Auchan tàmbali tey. waaw ñoom dégul. dañu liggéeyeen lu tax tey ji François Hollande. Mm-hmm. yilif sunu président. Mm-hmm. yilif président africain yi ñoom dégul ñoo ko liggéeyal. waaw ñoom Hollande tey ñu ngi liggéey loo xam ne day tax ëllëg. Mm-hmm. sunu sët yi bu ñëwee seen sët yi yilif sunuy sët. tey bu ñu jëlee li ñu am ni akas néew jël ko. bu suñ sëriñ ñëwee duñ yor dara. kon jeex ay esclave la ñu kon di ko doon te loolu dañ ko war a bañ duñ ko musa doon bu baax baax ci wax ji parce wax ci télévision yombul waaw wax ak mbooloo yombul mm. di nga wax loo xam ne lu jaadu mais maa ngi koy tuubal ñëpp te di ko jégalu wa rahmatullah waaleykum salaam ay ca tàggoo ndax nit ki ne lu maam rek ngay ngay joxe dëgg la te fii seen émission kër gi la dañuy toog di ko détaillé kenn ku ne la nii la rek bàyyeeku fri toog ci sunu salon rek toog di wax askan bi ñuy déglu <laughs> may ak ñuy sant yàlla rek. di di wax nag Ousmane moom it. Mm. ñun ay sénégalais lañu. Mm. Sénégal lañu dëkk fi lañu juddoo fi lañu dëkk te fi lañu dee. Mm. tubaab mënuñu noot. ci ku am fulla tubaab mënuñu noot tubaab ñooy daw si di ut si sëriñ Tuuba ak dongoom. waaye mënuñu noo noot. ma di ci ñaan yàlla nag. waa mu si seen la yàlla barkeel leen. bu baax. ak sama njaboot. di nuyu ak Yacine Mbaye Ndeye Sophie Alimatu Sadia di nuyu Sarata ak yaayam Met Jeme mu ngi ni mu ngi euh, Cambérène di nuyu Ndeye Diop ca Ngumba Ndeye Diop si di nuyu Yacine Seck di nuyu euh, Mame Diarra Seck di nuyu ñëpp nag di nuyu di commencé ci jaar rek na ma la di ci yem sunu jaal mboobu rek waaw na jël xam ne moom lu baax ci moom rek maa ko moom. ndeysaan ma koy ñaanal yàlla. amiin di nuyu nag. Mm. greffier chef. muy mm. madam Dieng. waaw kooku moom il faut mu ñëw fii détaillé nu lu xew tribunal parce que ñu bari nga koy ragal. te jàmm fa am. waaw di ñaanal ñëpp. loolu am na solo loolu am na solo ba tey ci kër gi la te kenn ku ci nekk war ngaa xam say àq ak say yelleef rawatina ñun consommateurs yi wax um, sunu gars yi nañu wàññi njëkk yi. Mm. waaye nag Auchan moom wax dëgg yàlla. Euh, mbiram daal doy na waar coowam ak commerçant yi ñàkkul ne état bi mi ngi ñuy seetaan du ñàkk na ki def ay jéego di gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina Pape Gueye nga xamante ni mu nga fële euh, ca diwaanu yi defal ma bii tey jii marinière 77 130 28 03 77 130 28 03 mooy numéro ma koy nuyu bu baax di ko ziar ziar képp koo xamante ni àndoon nga ak ñun rendez-vous incha allahu taala suba ñu dellu siwaat ci même thème bi ak yeneen i gan ci kattanu borom bi asalaamaaleykum. di nuyu nag Yatta Ndiaye doomu Sada Ndiaye. Yatta Yatta yaayu waaw. yaayu Assane eh, muy lu am solo asalaamaaleykum wa taala wa barakatuhu fi amanillah jaa ngeen jëf. jàmbat ju ji ci kër gee ak wax